daal léegi jotaguma jotaguma ko man lu ma wax dinaa ko waxaat noonu la ma yàlla bindee gis nga bu fekkoonte ne jot naa ko moom laay njëkk a wax dëgg la maa ngi yóbbante bi nag mm-hmm. président Macky mm-hmm. maa ngi yóbbanteem mm-hmm. mook soxnaam sama yaay jooju di soxna Mariam Faye maa ngi seen yóbbante bu ma leen gisee moo ma gënal ma jox leen ko su ma leen gisul bu buñ ma yónnee nit mhm. ma jox ko kooku mhm. loolu rek waaye nag jotuma leen mhm. jotu ma leen de xam nga ñoom it nag ndeysaan duñ bëgg a def lu baax ba pare di ca toppaat waaye nag loolu dara lii yóbbante la buñ ma jox pour ma war leen koo jox nañ ma nañ ma nañ ne indi ko rek wala ñu ne ma jox ko diw waaw dégg na ma moom moo doxoon indi yoon eh, daf yi nu mu tuddati passeport yi passeport yi moo ko indi woon samedi bi dañ dañ ma photo dimanche ñu indi photo yi ci guddi dem ay man loolu lim ma jaaxal kam ma jaaxal man daal lu tax Macky def ko ak ni ko defee ak ni mu rafetee ak ni mu dëggoo ak ni nga xam ne jëf yoo xam ne dara benn ngir sa lalu ko politique lalu ko mm. dara la mën daal loolu jaaxal na mm-hmm. parce que bu ko defoon sax siiwal ko ñu ne politique mm-hmm. waaye man Bordeaux laa ko yëgee Bordeaux maa xaadima taxaw mm-hmm. ma ne ko waaw man ku ma indi fii mu ne ma ku la fi indi ku dul président lépp moo ko def lépp mu ne ba ci paas yi ba ci hôtel yi lépp looy def président jox nañu bi may ñëw mu yëkkati un million moom moom moom moom xaadim un million ne ma dafa ma joxoon euh, seen seen argent de poche mm-hmm. argent de poche nag foofu dinaa fi taxaw mm-hmm. soo ko joxee borom te ko jox denc di ko denc di ko jëfandikoo moom muy un million ne ko moo ci des argent de poche kay bu ñu ko joxee nit uh-huh. da nga koy jox mu def ko ci poosam argent de poche la ñu wax di poche mm-hmm. argent de poche <laughs> ay waxuñ poosam moom <laughs> moom da koo jël def ci poosam waaw waaye bu fekkoon ne jëfandikoo na dégg na tubaab <laughs> defe naa dana ma ko jox mm-hmm. bu déggoon tubaab mm-hmm. danañu ko jox waaye nag ah yàlla baax na un million daal la ma jox mm-hmm. su may ñibbisi euh, ti maa ko maa ko ne man daal dama bëggoon nangam ak nangam mu ne ma ah kon kon Philips na la na na na yëkkati ko un million cinq cent jox la ko Philips si kartam un million la mën a génne mu génne un million jox ma cinq cent ba ñu bàyyi ko mu ne ma kon danaa la ko yónni suba France <laughs> yónni ma dara <laughs> man wér gi laa soxloon wax naa ko mm-hmm. nee ko man xaalis intéressé wu ma wallaahi wax naa ko xaadim dana ko mm-hmm. ma man wér a ma mm-hmm. man naa wér rek ba ñibbi yàlla defal na ma la mm. gis nga fi may gis ni damaa sonn rek mm. quarante ans mm. ku koy def conférence weeru koor wu ne soixante conférence bu dul weeru koor bis bu ne danaa am ñaari conférence quarante ans boole ko daara ji sëñ Babacar boole ko suma téléphone daara boole ko giléet mais loolu boo loolu da sonn kooku dafa sonn damaa sonn yooyu yëpp nga boole ko boo ko boolee da ngay sonn seen TV ñëw rajo Sud FM ñëw damaa sonn man damaa sonn man dara daluma fatige rek la ma doon faji moom faju na mu ngi nii loxo baa ngi nii jeexam loxo bee ma jaaxaloon Macky Sall faj na ko ndax moom moo def liñ ko fajee baax na waa Bodo it naa leen sant parce que docteur yi itam def nañ lu ne ba ma demee bés bu jot kenn jël ma bés bu jot kenn jël ma bés bu kenn jël ñu ne ma awantoore macha allah ba ma xëy ñu dem ci centre bi kooku ne fa lañ ma joxee garab yi fukki doom ak ñett danaa ko naan wala fukk ak ñeent man dama doon dof dama xëy dama ko def ci douche bi lii lii lii lii dafa ëpp damay naan ba duma gis parce que sama organe attanu ko mm-hmm. attanu ko vraiment nit dana am garab boo koy wutal mais moom dana du baax ci moom mm-hmm. parce que du ko àttan ba may ñibbi si ñu jënd garab jox ma ma jël garab yi daanaka jeex na man daanaka garab yi jeex na waaw moo tuutee ci des ah ñu toog bugaan bugaan woo ma rek bëgg maa rey naan ma naanal garab yi laa naanoo ko ma ne ko waaye itam bugaan man bu ma ne la koy naan maa ngi koy naan mu ne ah doon napp ba rek <laughs> <laughs> dafa maa bëgg ndeysaan eh bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan bugaan ni mel ci man sama feebar bi laa ko xam fekk na ma foofu nu mu tudd ma fa fay un million six cent ak la ma xamul mm-hmm. ba génn fa mm-hmm. moo waat ma ne ma man daal dangaa dem docteur Ndiaye ba xam ma demaat ci njaay fa laa gisee waaju garaaw joo xam ne boo gisee ba mu dëng rek ne bopp bi dafa fees dell la xam-xam moom daal moo ma xool sama loxo nu muy def fekk mu ne man daal garab bii ku ko jox Iran hmm, defe naa dana wér ñu ne ko acca mu ne eh, kay dooma koy signé wala jabar wala ndey walla baay mooy doo ko parce que dafa garaaw mën nañ ko wutal mu mu mu paralysé Pam Maxtaar Sàll ne ko indi may may doomam billaahi signé ko ñu dem jënd garab bi jox ma ko muy wàcc di wàcc ba loxo bi tane li mu doon def nii mm-hmm. tane waaye bii bras bii ci boppam mm. moom moo taxawul waaw gauche bi bi mm-hmm. taxawul di di man daal bii loxo jaaxal na ma firule nu ko neexee rek <laughs> dinaa danaa toogal ni sax di ko masque yéen seen ci bu ñu bëri ci yéen da ngeen di am xel rek gis ko waaye li ngeen ma jël yëpp maa ngi ko yor mm-hmm. léeg-léeg ma ne ko nii rek bu ma ko nii rek mu ne buqet waaw commencé def nii loolu nag laa dem Macky Sall taxawu ko bañ faj ko kon loolu man man man man man ma wax leneen waaw ah, lu jaajëf rek waaw góor du daal médecin yi taxawoon nañ ma dëgg dëgg dëgg lii problème bi rek mooy garab yi nga lii nga naan ma yàlla ñëw mu ngi mu ngi ñëw mm. eh, garab yi ma naan la rek garab yi su ma ko naani mm. dootuma fi nekk moo ko naani dootuma fi nekk mm. bu doos bi jeexee ma naanaat waaye xanaa bu jeexee ti ñoom ñu nga góor maa ngi fi na jeex na <laughs> eh, na moom kay jeex na CP am na CP ah, man CP boo waxuñ ma ko <laughs> boo doo rek lañ ma wax mm-hmm. donc loolu rek la c'est ça c'est ça c'est ça sa defee jëri jaageen jëf ngeen góorgóorlu rek incha allah moom daal nañu nañu bàyyi xel réew mi bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel suñu mbokk mm-hmm. baax na de bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel suñu mbokk ñu waxante lu rafet ci ñiy wër kilifa yi bañ leen di jay mm-hmm. ñu bàyyi jay jay baaxul tiim kilifa naan ko yaay lii yaay laa yaay lii yaay laa du dara mm-hmm. loolu du mm-hmm. nañ ko teg ci yoon mm-hmm. waaye di jay kilifa mu fay xëy ne fëppit ne day naaw nekk amul laab mu tëb tëb demoon la waa ji waxoon sëriñam sama sëriñ a ngi nii du fanaan cib daal day aras lay fanaan day naaw sëñ ba gëm ko ma daje ba tase sëñ ba dugg néegam tëj bunt bi ne ngeen may ma daal def ni loxo yi essayé essayé naaw manta dem mu tëb ba ci kaw daanu suuf mu ne xaaral ne ko moodukaay <laughs> mu ne ko yaa mën a fen yow ngeen ne damay fanaanaata mu ne ko may sëñ bi itam loolu waroo koo gëm nit ñee doon duufal rek may duufal nga war a xam rek waaw waaye itam nañu bàyyi jëy kilifa mm-hmm. ba muy yaakaar li nga wax am na baaxul loolu baaxul ak kilifa kenn du ko jay mm-hmm. am naa koo xam ne nii ne kenn mënu koo jay mm-hmm. muy Aline Sall mm-hmm. sama rak waaw kenn mënu koo jay kii def ma nettali ne ma bi tabaski bi ñëwee dama ko woo ne ko ah mu ne baax na nee na ma demaat ne ko mu ne nii de Iran nekku fi ci man aw ma xar mu ne ko wàcc na la ñuy ànd ko dee ko ci mais dëgg la ma ne ko dëgg dëgg la mu ne ma dëgg lan ma ne ko dëgg la nga naan ma ne ko dëgg ah, parce que amoo wàcc na la ti du farata waaw léegi na ku ciy xeex foo jëwee ci farata nag yow lii farata kay nga war a wax mais loolu la àdduna nit moom da ngay am fulla rek mm-hmm. waaye bul nangu ko la jay nit ñi dañ lay jay mm-hmm. ba nga xëy dugg ci loo mënul mhm. nga bëgg caa génn mu tëla mhm. te reste ci mhm. waaw loolu baaxul kilifa yi nañ leen moytoo jay ku mel ni Aliou sa nag moom mënoo koo jay moom loo wax mu ne umu su paree def la muy def rek ñi muy àndal amul lu muy def lu mu mënul baa mu def lu mu xamul lu man rek loolu mooy nit nit dafay def loo man wax loo man boo tëddee nelaw waaye def loo mënul wax loo mënul boo tëddee doo nelaw loolu baaxul loolu baaxul moo tax Alioune Sall naw naa ko trop ci loolu. Mhm. moom dëgg rek mënoon na ne Assane mii kan ñuy nekk mais ànd ak ku ne man na ko xamal. ba ma dem lijjantim xaar lépp ko. Mhm. waaw kii kii xam xamul ma xam xamul fu apropos Alioune Sall toll. to mu bëgg ko yenn xar mu ne ko ah, wàcc na la nag. <laughs> na am jàmm. <laughs> kii kay amul jàmm <laughs> kay am jàmm may kii amul jàmm. waaw ndax moom da jàmm ci mer. waaw waaye fekk na adduna noonu la. Mhm. da ngay def loo man rek nañu bàyyi jayante bi mhm. nañu bàyyi jayante bi nañu bàyyi taggante bi mhm. nañu bàyyi yaa fi ne yaa man lii man laa loolu dañuy gàkka def mhm. nañ ko bàyyi baaxul nañ ko bàyyi baaxul jërëjëf